avion président bu assemblée populaire bu Chine wàcc na ci aéroport militaire Léopold Sédar Senghor bu Ndakaaru mu ànd ak délégation boo xam ne lu toll ci ay téeméeri nit ñoo ci ne ganub chinois bi président bu assemblée nationale bu Sénégal di Amadou Mame Diop moo ko dal di dalal ñoom ñaari kilifa yi nag amal nañu niki tey ji ab séance de travail ci boobule waxtaan njiitu parlement sénégalais bi dal di rafetlu ñëw président comité permanent bu assemblée populaire bu Chine jàpp na ne bile visite dafay gën a dëggal lien yi nga xam ne dëgër na te wóor na yi am ci diggante Dakar ak Pékin. dañ ca gis exemple bu am solo ci lëkkaloo bi. nga xam moo dox ci diggante ñaari dëkk yi ci diggante si ak Sénégal la ndax moom nekk na partenaire bu njëkk ci wàllum koom ci réew waaye itam loole fexe na ñu daal di koy duufal liy firnde gi rek euh, mooy euh, li nga xam ne moo delluwaat ci wàllum politique ak ci wàllum diplomatie kon nag ci doxalin googu day tax ñu gën koo duufal naam waaye itam ñu gën koo xóotal ak daal di gën a lëkkaloo ci bu fekkee ni tamit rek am na solo lool tey gën li gën a firnde li mooy wisit bii nga xam ne amal nañ ko fii ci Sénégal. Chao Litji mooy premier président wu comité permanent bu assemblée populaire de Chine boo xam ne moo ñëw fii ci di rafetlu nag moom it coopération bilatérale bi ba noppi nag fas koo yéene gën a jooyanti. waaw ci gis-gis bi nga xam ne jot nañ ko wéyle waaye tamit moo am solo lool ak confiance bi nga xam ne moo delluwaat ci lëkkaloo ci ñaari dëkk yi loolee daal euh, mësta dakk kon tamit euh, wàllum coopération ci diggante ñaari réew yi di Sénégal ak Chine loolee am na njariñ li nga xam ne tamit moom lañ ciy xaar mooy daal. suñu teewaay fii mooy firnde gi nàmm waaye tamit fexe ba déggoo ci li nga xam ne daal la def ak déggoo bi nga xam ne moo dox ci diggante ñaari yi euh, njiiti réew yi waaye tamit gën a yéegal niveau bi ci wàllum lëkkaloo gi ci suñu institution yi nga xam ne tamit euh, moo tax rek lëkkaloo bi gën a sax bi bi la séance de travail jeexee moom Shawolit ji nag laa laata moo dem gisee njiitum réew mi Macky Sall dal dinay euh, xaatim livre d'or bi président bu comité boobee mu ngi amal bi la wërngal ci invitation wu naataangoom bu réewu Sénégal séjour bi nag li ci gën a fës bokk na ci ab visite bu muy amal niki tal yemook fukki fan ak juróom benn ci weeru mais fële ca parc industriel bu